ñun suñu logique bi ñuy dundee léegi shérif mooy ci wàllu am am mooy lu ma am ma loo am ñu bokk ko avancement lay amee lu ma am ma jël loo am ñu bokk ko nit ñi logique yooyu la ñuy dundee léegi maanaam wàllu social ay mbind yoo xam ne war nañ ko mën a jëlee ci sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh pour suuxatee ko suñu tag taggu jamono jamono ji dafa dem ba xam naa Chérif dina ci ñëw dafa dem ba mu mel ne lu planté wu. Mm-hmm. léeg mu am ci ordinateur yi. Mm-hmm. gaa yooyu xam nañ ci dara léeg nga activé ordinateur yi mu planté wu muy wër rek du nangoo dem. <laughs> nga ne xaaral ma fay ko book taalaat waaye kon nañu fay boog taalaat. Mm-hmm. ndax mu <laughs> ndax mu mën a dem. fay taalaat bi mooy lan. fay taalaat bi mooy ñun dañu am chance ci Sénégal. niroowuñu ak yeneen réew yu baree baree baree bare ci Afrique. Sénégal saa yu ñu yaakaaree ni dina takk ci lay gën a ci ci lay gën a nekk glace sax saa yoo ne eh suba mba suba de ma eh, yëf de suba la de moom daal kuy dem Dakar daal demal tey moom suba moom wóorul nañuy jël suñu matukaay <laughs> waaye bu suba dara du xew lu waral loolu du ci ñun mais li fi mag ñi bàyyi ak ni ñu ko fi bàyyee la loolu nag lañu ñu war a protéger ñu. Euh, yaatal ko ñu avancé ko pour ñu mën a kii pour pour ñu mën a am dund bu garantiw parce que du ñu ne am na ñu mag ñu baax rek dañuy toog di consommer bu boobaa dina am bés loolu nekk fi ba pare leneen dal ñu kon ñun am nañu royukaay yaakaar naa ne tele naa ko fi daaw dañu nekkoon ci benn université am benn année ñu dem vacances colonie colonie de vacance ku nekk di waxtaanee réewam am ñu jóge ay Mozambique wax naa ko daaw ñu ne dañuy faral di gis ci seen euh, jàkk yi ñu def fa photo bato li ko waral mooy li ko waral mooy ña ñu daan dugal jaam yi ñu daan dugal ci bato yi ñoo nekkoon ay julit moo tax lislaam ñëw ci ñoom ma ne leen bu senegal bi moo gën a piire boobu ndax ay nit la bato mënul corriger nit waxoon naa la ko daaw nit moo mën a corriger nit boo jumee mu ne la duni mm-hmm. ma ne suñu bos yi ay Cheikh Omar Foutiou la sedd Seydil Hadji Malick la Cheikh Limaamu la Cheikh Cheikh Cheikh yooyu mm-hmm. amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi mm-hmm. wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi dañu gëm ba pare nag tasaare loolu moo ñu may chance bi ñu am liy taal réew yi liy taal réew yi def nañu ko senegaal ay yoonu yoon waaye takkul li ko waral mooy ñooñu liy tax ba takk-takk yi nekk ci àdduna bi ci wàllu koom ak wàllu nekkin tàggantiku loolu mu ngi ci li fi mag ñi bàyyi xam nga boo booy dem ci waaw lan ngay njëkk seen soroor ba ngay njëkk seen mm-hmm, mm-hmm. booy dem Touba lan ngay njëkk seen sooroor ba fu la neex wax wax ci loolu kon ñoom digle nañu ne nañu jaamu yàlla Cheikh Sidil Hadji Malick ak ña ko xilaafaal yépp ba jamono ji ñoom ñëpp amoon nañu tool kër goo dem noonu la kon digle nañu ne nañu liggéey pour dundee ñaari tànk yi ku ko doxee fu ñu seen saxaaba yi ëllëg seen la fa wax na ko sànq ngëneel nekkul ci jamono boo boo seetee ci waxin ngëneel nekkul ci jamono ngëneel nekkul ci qualité mais mu ngi nekk rek ci ki gën yow daal bu dee yaa gën ndax li nga def yaa gën rek fan la woon ak kañ la woon amul solo bu boobaa kon ñun am nañu ay atu atu ci Sénégal yoo xam ne war nañu mën a protéger ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi mu ngi koy jànkonteel ci wàllu comportement ci wàllu économie ci wàllu social xam nga Sénégal fii da ngay naan kunda bin rey sa maam boo séenee lu ñuul dawal mentalité wu jàmm la mentalité wu jàmm la bu manifester amoon bu manifester amoon ku nekk dafay tiit naan yee gars yi suba mbaa du duñ mbaa du ñu taal réew mi suba ñoom ku nekk loolu lay wax. Mm-hmm. bu ko defee bu subaa kenn du taal parce que ñëpp tiitoon nañu ne mbaa gars yi duñ taal te yow yaay gars yi. Mm-hmm. mentalité yooyu lañu mag ñi samp mënuñu ci dara nag. Mm-hmm. ñu ngi koy consommé te yeeguñu ko. waaye jaroon na jaroon na bés bu jot rek ñu génne ñaari dërëm yoo xam ne dañ koy dugal ci xabru yooyu ne bii mooy suñu. locasion wu tey bi bokk euh, euh, euh, crédit wu jàmm bi nga ñu bàyyil fii lii mooy lii mooy location ku am lu mel noonu da nga war a xam ne am nga ko boo xamee ne am nga ko danga ko war a tasaare con euh, protéger ko te drapeau bi nga xam ne mag ñi yëkkati nañu ko ci biir ci biir Sénégal muy raf loxo yi koy téye ñooy remplaçante waaye drapeau ba du daanu. Cheikh Sidil Hadji Malick bu fi doon dund tey bu fi nekkoon tey lu mel ni li sëñ Mansour def nii loolu lay def mooy kaay leen ñu waxtaane yàlla kaay leen shérif ñëw wax yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na ñun ñu déglu dellu ci biir société bi pour loolu mën a jeexital ci bu ñu delloo ci bureau ya mën a jeexital ci bu ñu delloo ca tool ya mën a jeexut jeexital ci bu ñu nekkee ci tali yi moo tax Chérif foofu lay tëjee ndax guddi na sax te waruma woon wax wax naa ko boo gisee comportement bu jaaduwul ci tali yi nit koo xam ne ci comportement baare na circulation bi lépp na teg ay téeméeri téeméeri nit xamuloo seen soxla yow ci sa comportement rek baare nga tali bi lu mat ñetti minutes ñetti minutes yooyu boo yaakaaree ne ñetti minutes la juum nga. ndax il faut nga xam ñaata téeméeri nit nga tardeel téeméeri nit ñooyu kenn ku ci nekk tardeel nga ko ñetti minute te xam nga ne ñetti minute shérif mii hmm. nirul ak suñ ñetti minute yi de <laughs> kon fokk ànd maa xatala naa sa jami'an rek mu ngi mel ne tukkil nga adduna ci wàllu temps hmm. mu ngi mel ne tukkil nga àdduna ci wàllu temps hmm. léegi comportement yooyu li koy jegal mu ngi ci li fi mag ñi bàyyi ba ni ñuy organiser suñu sàppe yi ci jàkk yi ñu mën koo organiser suñu oto yi ci bu ñu nekkee ci tali bi mën a organiser noonu suñuy sàpp yi bu ñu nekkee ci buntu banque yi di ram ak fu ñu mënti doon yii mooy